Mesdames et Messieurs, Sénégalaises et Sénégalais, ce jour fait partie de ceux qui peuvent rendre toute une nation fière parce que c'est un jour d'espoir et c'est un jour d'espérance qui renaît. Le monde entier nous a observés ces dernières semaines face à cette agression de Macky Sall, agression contre le peuple sénégalais, agression contre notre constitution, et le monde se demandait comment le peuple sénégalais réagirait. Et nous avons montré au monde que nous sommes capables de réagir. Nous sommes un peuple de refus, un peuple digne et debout. Nous venons de chanter l'hymne national. Les mots que nous avons dits ont rarement eu autant de portée et de signification. Épaule contre épaule. Sénégal est debout. Nous sommes aujourd'hui debout sous le drapeau pour faire face et défendre la République, pour défendre l'état de droit, pour défendre l'éthique. Pour rappeler les propos du cher père Kebambaï, il n'y a rien s'il n'y a pas d'éthique. Il y a l'éthique avant la politique ou avant le politique et avant le technique. Cette éthique a disparu sous la gouvernance de Macky Sall. C'est ce que nous voulons faire renaître. C'est pour cette raison que je voudrais vraiment du fond du cœur remercier et féliciter ces hommes et ces femmes qui ces derniers jours, ces dernières semaines, ont travaillé d'arrache-pied à mettre en place ce front, ce grand front. Ils se sont sacrifiés, ils ont chacun et chacune lâché du lest pour offrir au peuple sénégalais cet espace de résistance. Résistance citoyenne, résistance patriotique, résistance républicaine, pour avoir gain de cause et faire partir Macky Sall dans les meilleurs délais et sous les meilleures conditions possibles. Sous les meilleures conditions parce qu'on ne laissera pas Macky détruire ce pays en partant. Il faut que nous le sachions. L'enjeu, c'est qu'il parte conformément à ce que dit notre Constitution. Il n'aura pas une minute de plus après le 2 avril, mais on ne le laissera pas détruire le pays, faire la politique de la terre brûlée. Le Sénégal restera debout et entier. Oderlin a dit, là où croit le danger, croit également ce qui sauve. Le danger qui croit, c'est Macky et ce qui sauve, c'est le peuple sénégalais et c'est le Conseil constitutionnel. Et je voudrais terminer en disant ceci au Conseil constitutionnel. Vous avez 18 millions de Sénégalais, des bébés aux plus anciens de ce peuple, tous autour de vous, dressant un rempart infranchissable pour vous protéger des manœuvres de Macky Sall et de ses menaces. Tenez debout. N'ayez pas peur, le peuple est avec vous. Vous êtes notre dernier rempart. Dinañ len dinañ leen sant dinañ leen yokk doole yéen conseil constitutionnel parce que yéen rek yéen a mën a jël décision bi mën a sauver réew mi parce que askan wi pare na en jotaay bi wane na ko kenn du reculer kenn du dellu ginnaaw kenn du fi may Macky Sall benn minute au-delà du 2 avril te duñu ko bàyyi mu yàq Sénégal pour dem ndax réew mi ëpp na ko dañ ko jox réew mu dëgër mu taxaw mu ñëpp respecté ci àddina bi bu ko naree yàq dinañ ko nangu ci moom te moom la ñuy génnee incha allah maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup Merci, Président Président Assalamu alaikum. Comme que les candidats qui m'ont précédé, nous ko fait. jaale Sunumbok, mbokk yi nga xam Amdar, amdar, ci nuti bi am ñàkk seen bakkan am ñu ci blessé wu di ñaan suñu borom ci mbaxam ñu dajee njéggalam ak yërmandeem te mu xaral leen ci àjjana yi gëna kawé le président Macky Sall a rêvé avant-hier en nous invitant à son dialogue de vivre en face une opposition divisée. Aujourd'hui, à coup sûr, il va vivre le cauchemar de voir l'opposition avec les forces vives unies pour lui faire face. Et c'est ça la hauteur qu'il faudra saluer Moi, bu waxtu jàkkaarloo ak ki yàq jotee nek ci li nga xam ni moom la askan wi di xaar ndaxte askan wi li muy xaar mooy ay dirigeants yu jub ay dirigeants yu bëgg réew mi ay dirigeants yu mën a fàtte seen bopp mais ay dirigeants yu leen di fàtteliku nekk seen wet tout temps président Macky Sall déjà violé na la constitution et mi ngi encadré violation bi de manière parce que article 31 45 jours 30 jours avant la élection avant d'être départ de l'élection. la élection war dimanche dimanche 18 février dimanche 25 février dimanche 3 mars te dégg ngeen ko démb mu ni ñi doon dialogué seeni conclusion le 4 mars la koy jël loolu di wane ni lépp lu constitution bi wax dina fexe ba jéggi ko parce que boo leen recevoir le 4 mars mooy dimanche yi ñu waxoon tëj nga leen tëj nga leen pour tëj bunt yi nga xam ni succession dina mën a am soit par ñi sénégalais yi fan

ban mot la utiliser un avis au conseil constitutionnel motax tay bima bi avis presse bi wax ko sans fatali loolu la gis ni jogat na pour bañ respecter sa parole parce que c'est un exercice simple kuy borom xam-xam kuy borom xalat mën lo nax ci exercice boobu na tej buntu yëpp bàyyi ben fenêtre ngeen bëgg ka man la ngeen bañ ka man la te fenêtre bobu mo ci dess kon bu len ci xaar len ci avis bobu mu dugal di wax sénégalais ni lepp lu nu mën ñoo koy def mais bu kenn tok sétan jël len ko comme immeuble immeuble ay appartement yu bari mën na ci nekk bo len jappé ni ben appartement bi entre politicien la ñom la lu fa xew du concerner benen appartement bi yenn situation yi mën na doon dëkk wante boo dajee ki nga xam ni dafa wàcc ci suuf dem ci fondation yi xool semelle ya xool poutre ya dóor ci képp ku nekk ci biir immeuble boobu yaa ngi en danger parce que bu boobaa appartement yi risque ya fay am ce sont les mêmes et aujourd'hui loolu la ñuy assister moo tax yéen ñi nekk au niveau de la diaspora di féliciter seen taxawaay ñi nekk à l'intérieur du pays di féliciter seen taxawaay mais di leen wax ngeen renforcer davantage di wax aussi foofu la que nekkuñu ci prise d'otage avec une demande de rançon la rançon mooy loi d'amnistie tey na démocratie sénégalaise pour ngeen may ma ma dem ak jàmm voter leen loi d'amnistie maanaam faase leen li fi amoon yëpp diggante 2021 ak alors que ku le principal responsable ci le président Macky Sall wax nañu ko on est contre toute loi d'amnistie ñi mu di ay détenus politiques na leen bàyyi na bàyyi le président Ousmane Sonko na bàyyi le candidat Bassirou Diomaye Faye organiser des élections avant le 2 avril dem bàyyi Sénégal ci nim ko jotee woon ci njekk ak teraanga jërëjëf. merci euh, pour les journalistes, il reste juste deux intervenants.